asalaamaaleykum mbokk internet yi yéen a ngi waat ci seen chaîne commune Golf Sud Info tey nag ñi ngi dugg fii di waajal dugg ci biir marché Gueule dem nag di laaj marchand yi ak képp ku fi liggéey nan lañ tuddee commune Covid 19 bi ba xam am nañ ay masque wala it jot nañoo am ay matukaay ngir xeex bu baax bi bi mas boo xam ne moo nekk si biir dëkk bi. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi noo tudd. man jaga fay laa tudd. nan ngay liggéey fii ci marché bi. waaw ah, jaaykatu yàpp la buuse la. léegi mën naa xam yow nanga nga dundee corona bi fii ci marché bi. waaw ñun comme ñu ko ñëpp di dundee rek toog protéger wu de wut suñu gel waaw wut suñu masque waaw daf lépp protéger wu rek comme luy lore la te dugg na si biir dëkk bi te day walaate te kenn xamul foo ko jëlee te yàlla dogal na ñun milieu public lañ nekk ñuy fagaru wut suñu gel wut suñu masque di raxasu tout le temps aussi tamit waaw def benn distance client buy jënd ñoo ko taxawal ne la ñu jaay la jox la nga dem noonu lañ koy dundee. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi looy liggéey fii. man marchand damay jaay fii si marché bi. nan nga dundee Covid bi fii ci marché bi. waaw Covid bi moom am na benn instant mu ngi tane parce que dëkk bi moom temps yëpp côté yëpp moo taxaw waaye xam nga rek àdduna bi moom tamit su fekkee ne feebar bi la ñëpp la li affaire bi ñëpp la laal quoi waaye marché bi tamit benn côté si biir moom doxatul léegi waaw clients yi ñëwatuñ de plus que xam naa ne liñ coow bi moo bëri fii te trop moo tax moo tax yi ñëwatuñ daal. est-ce que jot ngeen a jot a aide bi maire bi yónnee. ñun commerçant yi. waaw ah, ñun moom gisuñu aide. a ah, non non jotuñu dara de. a ah, man boog damaa par gisuma. waaw parce que ku nekk boppam la xam. maa ngi bëgg a yàgg si marché waaye gisuguma dara dégguma benn aide boo xamante ni maire indi na ko fi dégguma ko quoi. gisuma li ñu doon dund dem ak barke dem ba du dem suñu doole waaw suñu rek loolu la ñuy dundee ba léegi. xëy bu ñu war a xëy di wàcc des fois jours yi ñu wax ne duñ xëy tamit aussi ñu resté suñu kër toog tranquille ba. loolu pas suñu continuer ñëw continuer suñu liggéey ñun daal lañ koy dundee. est xam nga ban kan mooy maire fi yow. waaw maire commune bi xam naa ko mooy Aïda Sow Diawara mooy mooy maire commune bi. léegi doo amoon tey ji doo jàkkaarloo moom war ko wax tey ji pour lu mu leen dimbalee loo koy wax. ah boobu parce que depuis affaire bi am ba léegi moom sax moom euh, taxi yi mu amoon yëpp arrêté woon nañ ko suñu amee lenn luñ koy wax mooy mu gën a taxaw marché bi éclairage public parce que commerçant bi nga satisfaire ko yombul. éclairage public amu fi ñiy jël mbalit bi tamit bëriwul li ñëw semaine bi dañuy ñëw deux fois trois fois arrêté waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi noo tudd. man maa ngi tudd abi mooy woowee Baye Fall. fàttali ñu fa lañ nekk ni waaw ñu ngi marché jàmmalaay bu rond-point case bi quoi ñu koy duppee ñu koy woowee marché Gueule Tapée waaw. léegi tey daal ñu ñëwoon seet si la pour xam aussi corona bi yow na nga koy dundee. ni ñu koy dundee fii quoi waaw xanaa moytu rek Euh, def li docteur yi diglé waw li li suñu médecin diglé sëriñ yi joxé ko muy ndigal ñun ci lool lañu man ci lool la taxaw man waw lool lay dund quoi. légui ñi par rapport à aide que que maire commune bi est-ce que yeen jot ngeen ci aide bi. non ñun mom centre man mom bu féké dëgg lay wax na yalla tax man dama japp ni marché bi sax yi nekkul si benn maire quoi amul benn maire bu ko diriger quoi parce que marché mom amul daray maire quoi ñun gis ñu daray maire nga xamu ñu sax maire waaw maire bi depuis ñuy tabax buntu marché bi mu ñu yegul won ni ñu ngi tabax fofu la gën ci ay mbirum mom parce que marché bo xam ya ko yilif ñuy tabax buntu ba ay batama ay étage ngan yow yego ko won waaw maire bo mom xaw mom ngir ñam ci marché bi quoi. est ce que yow xam nga ban maire mo fi nek actuellement. waaw dégg na ñuy wax adassou Sow Diawara maire golf bi waaw mais ñun mom centre ruñ suñu bop ci mom wax dëgg yalla tay ju do janal nak mom la nga ko wax. non lim bu ma janoon ak dama koy wax ni carrément suñu marché bi mom wax deug yalla danaka nekul marché sax parce que marché bi manam limu wara liñu wara limu wara war a jëriñ mer sax jëriñ ndax marché bi dafa mané bu nekkon nit la dama nan handicap la wa marché bi doxul quoi marché bi dafa reuy di marché la mo ëpp ci Sénégal mais amul njëriñ ndax marché bi bo xolé bo xol rëyaayam yëpp amul benn place newu ci biir marché bi vide la amul dara ci biir ñëpp ngi dajaloo ci biti waaw ñun dal ñu ngi ni dal waaw maire moom bu mu koy wax dëgg-dëgg dama koy wax ne mu ñëw gëstu marché bi quoi defar marché bi fekkee mënu ko tamit mu dénk ñu ko ñu defaral ko suñu bopp mu ku ko gën a a yelloo rek. waaw wala mu waaw mu dénk ko ki ko gën a mën a yelloo mais damaa naa damaa yaakaar ne xanaa ñi nekk si biir marché bi dofuñu dof bu toll ni kay marché bi di leen ko defar bu leen dénkee sax xëy na amaana ñu defar ko mais bu fekkee ñoom mënuñu ñu seet ku a parce que ñun suñu teranga fii nekk waaw léegi man ma bëgg a xam oh. yow tey jii gis nañ ne corona bi métti na ne ñu ngi naan ay distanciation yow na nga koy duggee dundee ak sa soxna. waaw xam na xam nga boobu foofu moom dafay métti tamit quoi wax dëgg yàlla bu ñu dee wax dëgg yàlla tax rek yow mu doon nekk sa kër ba pare sa doom toog ne à l'écart say doom yi toog ne ku ne toog ne xam il faut ñu gën dajaloo quoi mais lépp daal ci fagaru lay aju balaa nga boo wàccee man comme man par exemple man bu ma wàccee balaa may dugg sama néeg damay rax samay loxo te bu ma nekkee ci marché bi dina fexe ba lépp loo xam ne yëg sentir naa ne amaana nit mun na koo takkal corona mun na ci nekk sama yaram bu ma àggee kër moom balaa may jokkoo sama doom dinaa fexe ba loolu deñ naa jéem daal pour loolu deñ ginnaaw loolu nag après mun naa jaxasoo ak ñoom wante ñoom it dinaa leen fexe ba ñoom it sama doom bi gën a ndaw sax buy génn bu sol fii laay toog di woo yaay bu solul masque du génn ñemewul sax ñemewul loolu sax. léegi moom bëgg a xam est-ce que soxna moom mi ngi continuer bagage yu baax yi cuuraay yeeg nemm nemm mën ta ak il faut ñu def ba mu baax waaw parce que tamit affaire bu c'est pas la fin du monde quoi mais quand même dañu parce que état bi Macky Sall def na ñu dund ak fièvre bi man dama gis ne nit ñi ni ñu leen waxe dund leen ak fièvre dañu ko dañu def erreur ci dégg-dégg bi parce que dund ak fièvre bi nga jël tous les matakaay pour moytu fièvre bi nga jël matakaay yépp pour xam nga pour ar sa bop ci fièvre bi ba par nga mun a nekk ak fièvre bi te fièvre bi do dal lool moy dund ak fièvre bi mais dund ak fièvre bi tekkul nga bayyi sa loxo mais boy bëreeg nit pour pour nga bëreng nit ki il faut nga ngemb nga entraîner taxaw mais bu fekkee entraîner woo taxawoo defoo dara nga bëgg a xeex ak nit ki mais nit ki da lay duma dund ak feebar bi nag mooy ñu aar suñu bopp ñuy takk masque bi gi nga marché bi nga gis ñu bëri gëmuñu feebar ku la wax ne gëm na feebar bi day sóob gëmuñu feebar bi bu jógee naan eh, politique la yu kan xamul lu ñu takk masque boo koo nuyu ku la jox loxo boo bañee mu mere la am na koo xam ne dafa taxaw carrément mu ne ma man bu mu la nuyoo ci corona bi fay joxoma loxo bu loolu weesoo bul ma nuyooti xam nga nooneel lay jur suñu biir bo xolé bo febar bi nit ñi niñ ko déggé bu yàggee nooneel lay jur suñu biir te or demul non ku ne dafa war a aar boppam moromam affaire bi loolu laaj pour man dund ak febar bi moy ñuy ñuy ñuy raxas loxoy di tak masque yi ak febar te feebar bi lu ñu mënal dara ñu duma ko loolu man man pour man moy dund ak febar voilà. merci beaucoup bëgg naa leen bu baax a yéen yéen ñi nga xamante ni yéen a teew fii tey sàkk suñuy xalaat lii tamit am na solo.